Bassirou Diomaye fay ci loolu rek instant bi nag askan wi yëpp rek ñoo ngi jukk taxaw rek di amal ab parrainage rek bu mag a mag a mag ñoom nag tàyyiwuñ ci benn yoon ndax fu tëll rek fu li xamoo di waa fa nekk rek di def seeni parrain askan wi ñëpp ñoo ngi ñëw nag pour fekk si leen daal leen di parrain